مولاي الشيخ عبد العزيز الامين التجاري أعوذ بالله السميع العليم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 على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل العميم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل العميم إخواني في الله إخواني في الله أحييكم جميعا أحييكم جميعا بتحية الإسلام bi taxiyati lislaami altayiba almubaaraka alxaalida wa aqul assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñun ñëpp nañu wax alhamdulilah rabbil alamin. nee ñun ñëpp nañu wax alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. waxaat leen alhamdulilah rabbil alamin. nee dañu fee daje woon daaw. def lu mel nii. ñaan fekkere yàlla defal na ko nu war ko cee sant nag te ñaanaat ko nag mu mayaat nu nu fekkewaat ko déwén te déwén dàq ren ne ci tur ki moom yëf yi mu di Seyid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al ne mu ngi leen bi nuyu yéen ñépp di leen ziyaara di leen ndokkeel nee di ndofteel xadra bi bi laata ñëw toog fii ci seen kanam dem nañ ci moom wax ko ni ko gàmmu gaa ngi jub lan mooy xalaatam mu ni sama confiance ci yow amul limite ni soo demee noo ko doxale rek yaag Serigne Mbay ak Xaaji Malik baax na mu mel ni nag lii dañ lii dañu ko fee fekk ndax ndax Seydil Xaaji Malik radiyallahu dafa wax ni yàlla kenn mënu koo màggal yàlla kenn mënu koo màggal ndax màgg na ba noppi ndax màgg na ba noppi kon li ngay man kon li ngay man fekk lu mu màggal nga màggal ko te ku ne xam na ni te ku xam na bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi moo ko màggal moo ko màggal boo seetee alquran kay boo seetee alquran kay ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لقد جاءكم رسول من أنفسكم نه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم loolu màggal mënu koo paase wala tagg bokk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا wa sallimu taslima ne kon looloo tax Cheikhul Hadj Malick waar wi mu bay waar wi mu bay ci yonent bi ci yonent bi mooy waaru ne sallallahu alayhi wa sallam mooy waaru màggal màggaayam ndax yeneen ci bi màggaayam dafa bokkul ak màggaayu waa suuf dafa bokkul ak màggaayu waa suuf di màggaayu di màggaayu matière matière boo xam ni dafa am fu mu yem boo xam ne dafa am fu mu yem nga xam ni taxtamidu nga xam ni taxtamidu ala al maali ala almaali والنفوذ والنفوذ أو الجاه أو الجاه والنسب النسب والنسب, والنسب والسلطان والسلطان فإن العظمة المحمدية فإن العظمة المحمدية لا تقف عند حد لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية ولا تنتهي إلى غاية فعظمته فعظمته لم تكن لم تكن من جنس عظمات البشر من جنس عظمات البشر إنما كانت إنما كانت عظمة الرحمة عظمة الرحمة والإحسان والإحسان والحنان والحنان وعظمة الهداية والإرشاد وعظمة الهداية والإرشاد إنها إنها عظمة سيد الأولين عظمة سيد الأولين والآخرين والآخرين المبعوث المبعوث رحمة للعالمين day la màgg. ne boobu màggaay la yonent bi màgg. waa suuf waa amee xaalis bu bari. boo amee xaalis bu bari. ñu ne kii kat màgg na. ñu ne kii kat màgg na. ku ku ku xulóog yow. ku xulóog yow. soo ko tooñee it moo la tooñ. soo ko tooñee it moo la tooñ. sama classe bi bu ñu ñëwee. sama classe bi bu ñu ñëwee. dañ naan yow xanaa xamoo kii. dañ naan yow xanaa xamoo kii. xaalis baa tax xaalis baa tax wala wala nga am influence nga am influence ci jamono ci jamono ñu màggal la ñu màggal la wala yàlla jox la daraja wala yàlla jox la daraja ñu di la màggal ñu di la màggal ngir daraja joojee ngir daraja joojee wala yàlla wala yàlla. boole la ci askan bu mag. boole la ci askan bu mag. askanu buur. askanu buur. wala askanu sëriñ. wala askanu sëriñ. ñu di la màggal. ñu di la màggal. ngay tiitaru. ngay tiitaru. defe ni yaa ca nekk. wala màggaayu nguur. wala màggaayu nguur. ñu jox la ko. ñu jox la ko. nga nekk buur. nga nekk buur. nekk ci kaw nit ñi caag caagi. nekk ci kaw nit ñi caag caagi. yàlla moom toog fële di seetaan. yàlla moom toog fële di seetaan. ba mu neex ko ba mu neex ko mu fël siis ba. nga ni det. nga ni det toog. moom màggaayam di ci màggaay yooyu benn. nee moom nag màggaayam di ci màggaay yooyu benn. màggaayam màggaayam màggaayu Muhammad màggaayu Muhammad la laa taqifu inda xaddi nee laa taqifu inda xaddi wala tantahi ila gaaya wala tantahi ila gaaya màggaayam màggaayam bokk la xeetu màggaayu waa suuf bokk la xeetu màggaayu waa suuf màggaayu yërmande la màggaayu yërmande la màggaayu rafetal la. màggaayu rafetal la. màggaayu ñeewante la. màggaayu juble la. màggaayu juble la. ak teg ak teg ci yoonu njub. ci yoonu njub. yàlla yónni ko. yàlla yónni ko. ci biiri bokkam. ci biiri bokkam. ñu di ko fenloo. ñu di ko fenloo. di ko yëjji. di ko yëjji. ba yegg ci. ba yegg ci. yabal jigéen ñi xale yi. yabal jigéen ñi xale yi. ñu tappaas leen ko. ñu tappaas leen ko. yuuxu leen ko. yuuxoo leen ko. wax leen ni dof baa ngi nii. mu génn. mu génn. jigéen ñi. xale yi xale yi. topp ci kaw topp ci kaw di ko xëpp suuf. di ko xëpp suuf. di ko sànni doj. di ko sànni doj. ba am ci doj wu damm bëñam. ba am ci doj wu damm bëñam. bii dagg kostenam. bii dagg kostenam. muy nàcc. muy nàcc. loolu ko seetaan. moo moo. moo tax moo tax yàlla. loolu du ko seetaan. loolu ko seetaan. seetaan lu ko gën a ñaaw. seetaan lu ko gën a ñaaw de. moom kay ñaanal sutura rek. moom kay ñaanal sutura rek. ba mu ca jógee. ba mu ca jógee. mu ñaan borom. mu ñaan borom. mu may ko. mu may ko. mu seeti feneen. mu seeti feneen. humiliation bi metti na. ndax humiliation bi metti na. mu may ko mu dem Madina. mu may dem Madina. dem préparer fa boppam. dem préparer fa boppam. ba am douze mille soldats. ba am douze mille soldats. ànd ak ñoom wut si mag. te boobu mag te boobu mag. trois cent soixante familles ñoo fa nekk. trois cent soixante familles ñoo fa nekk. ba ñu dugg see Makka. ba ñu dugg see Makka. Allahu akbar ja. Allahu akbar ja. takkar naa si. takkar naa si. jaxasoo. jaxasoo. ba ñu naan malaaka yi dañ caa ba ñu naan malaaka yi sax dañ caa bokk. te pourtant bokkunu ca. ñoom ñëpp ñu ne ah, ñoom ñëpp ñu ne ah. tey mu dee de. dana nu dee de. tey la ñuy wan loo xam ne. tey la ñuy xam ne. lanu ko defoon yëpp dana ko fay. lanu ko defoon yëpp dana ko fay. waaye boobu xamuñu boobu sang. moom li ko ñor. moom li ko ñor. nangu kaaba ga ci seen loxo. nangu kaaba ga ci seen loxo. ba benn dootu foo jaar. ba benn xërëm dootu fa nekk. mu ne ah ku daw dugg si kër. mu ne ah ku daw dugg ci sa kër. dama jotee yow dara. dama jotee yow dara. ku daw dugg ci kër Abu Sufyaan. ku daw dugg yow dara. dama yow dara. ku daw dugg ci xunt yi. ku daw dugg ci xunt yi. dama jotee yow dara. dama jotee yow dara. waaye ku ma nekk ci mbedd ma nag. waaye ku ma nekk ci mbedd mi nag. bu nu dajee. bu nu dajee. nga xam ni mën a mu wuti kaaba ga mu wuti kaaba ga ba mu àggee ñetti téeméeri xërëm la fa fekk ñetti téeméeri xërëm la fa fekk ak juróom benn fukk 360 xërëm 360 xërëm ndax famille bu nekk da amoon sa yàlla ndax famille bu nekk da amoon sa yàlla di ko jaamu di ko jaamu yàlla joo xam yaa ko yàq yàlla joo xam yaa ko yàq xeer la xeer la nga for ko jékki-jékkal nga for ko jékki-jékkal am na ci koo xam ne sax moom ne am na ci koo xam ne sax moom ndes tayit la wutoon ne ndes tayit ndes tayit sunguf ne sunguf la jël la jël defar ko ba mu jëkk defar ko ba mu jëkk lakk ko lakk ko ñëw teg ci ñëw teg ci kaw ndaam kaw ndaam ni koo koy yàllaam ni koo koy yàllaam bés nag mu ñëw. nee bés nag mu ñëw. xiif xiif nag. te néeg bi dara nekku fi. te néeg bi dara nekku fi. lu dul yàlla ji. lu dul yàlla ji. mu xool ko. xool yàlla ji. waaye téema koo lekk rek. Ah, kon téema koo faf lekk rek. su beneen yoonee. bu beneen yoonee. ma defaraat ma defaraat beneen yàlla teg fi rek. tax boo fi bàyyee yàlla rek. ne moo tax boo fi bàyyee yàlla rek. mu takk sa xel. mu takk sa xel. dootoo xalaat. dootoo xalaat. mu jël yàlla ja lekk. mu jël yàlla ja lekk. ba mu ñëwee nag moom. ba mu ñëwee nag moom. dafa jubal ca Kaaba dafa jubal ca ni daaneel leen xërëm. ni daaneel leen xërëm. ñu daaneel. mu ni Bilaal yéegal nodd. mu ni Bilaal yéegal nodd. mu yéeg nodd. mu dugg ci biir. mu dugg ci biir. julli ñaari rakka. julli ñaari rakka. génn. génn. wuti leen ñëw yéeg ci kaw xeer wi. ñëw yéeg ci kaw xer wi. tiim leen. tiim leen. ñëpp ngi pat pat. ñëpp ngi pat pat. mu ni maa tadunnuuna mu ni maa tadunnuuna anni faailun bikum al-yawma anni faailun bikum al-yawma lan ngeen foog ni moom laa leen def tey lan ngeen foog ni moom laa leen di def tey qaalu xayra qaalu xayra anta axun karim anta axun karimun wabnu axin karimin ko séentuwuñ ci yow lu dul yiw ni ko séentuwuñ ci yow lu dul yiw mbokk mu baax nga mbokk mu mu baax nga mu ni laa tastari laa tasriba yow ne amatu leen bakkaar su ko defee nag kon. ne su ko defee na kot boobu màggaay la màgg. boobu màggaay la màgg. màggaay yu jikko. màggaay jikko. yi ci yonent yi yëpp. ne jikko yi ci yonent yi yëpp. daje ci moom. daje ci moom. yàlla teg ko fa mu ko teg. yàlla teg ko fa mu ko teg. loolu tax nag moom Cheikhul Hadj Malick ba mu ñëwee. mu màggal ko. comme ni ko yàlla diglee. comme ni ko yàlla diglee. woote ci Tiwaawan. am ci ndigal. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci ndigal am ci ndigal ci Cheikhuna Tijaani Chérif radiyallahu anhu am ci ndigal am ci ndigal ci Umarul Fuuti radiyallahu anhu door a woote nag door a woote nag moo tax bay alxaaji maam alxaaji Samba Ngoti moo tax maam alxaaji Samba Ngoti loo radiyallahu anhu radiyallahu anhu ba ko waa këram ne ak góor gi ba ko waa këram ne ak ah, góor gi te nga taxawal gàmmu nag. te nga taxawal gàmmu nag. sa moroomi muqaddam yëpp am nañu gàmmu. sa moroomi muqaddam am nañu gàmmu. yow nag wutal gàmmu nag. yow nag wutal gàmmu nag. Ah, ah, mu ne ah waaw waaw waaw waaw. waaye tey ñoo dem Tiwaawan rek. waaye rek. di gàmmu ji rek. ndax garanti ba Alaaji Malik am kat. ndax ko. kon nag gàmmu duma ci fekk mu ni ndax moom mën naa am garanti mën naa am garanti ba nit ñi fay daje ba nit ñi fay daje daañu fa daje ba jóge fa daañu fa daje kenn du fa mooy yàlla kenn du fa mooy yàlla wala mu am garanti wala mu am garanti